bi ku leen la gis man ay garde may garde caaxaan taxul dugg sama kër waxee garde corps yi taxaw ci buntu kër yow alquran nga yor yow doo am garde corps moom bu ko wut yow alquran lay garde yow moo lay sécuriser beneen bi ci topp itam sa maam yu tedd yu baaxee ca loola lañ la woon defoo itam lu jar wuti garde corps yow yow ngeen am cant bëgguma mu siiw màggal jàppale ni njaay Pro barab bii di barabu communication di ngeen si ànd ak Xaadim Ndiaye